إلا لا لا إله إلا لا باي فال لا إله إلا لا لا إله Cheikh Mababou ak dëkkandoo yi ak am di jàmm yi ak bàjjen yi ak baay yi ak bàjjen yi ak baay yi Serigne Souleymane nga leen nuyu Serigne Souleymane Gueye moo leen di nuyu di leen jaajëfal ci coono yi te di leen jaajëfal ci coono yi di leen xamal ni te di leen seen pas bii ngeen seen pas bii ngeen sant nañu yàlla bu baax sant na ci yàlla bu baax. liggéey bi. ndax liggéey bi. saa su weer wi dellu see. ba ñu jaaxle ci. ba ñu jaaxle ci. ngeen takkuwaat. ngeen takkuwaat. def ko noo xam ne sii. def ko noo xam ne sii. musuñu ko musuñu koo defee noona. musuñu koo defee noona. ci lépp nag. ci lépp nag. kon mu ngi leen ciy jaajëfal. kon mu ngi leen ciy jaajëfal. te di leen ci jàjjaat. te di leen ci jàjjaat. di feddi laxasaay rek. te di leen sant. di feddi laxasaay di feddi laxasaay yi. gën a te ngeen gën a góorgóorluwaat. sunu kanam. ci sunu kanam. li ci sunu kanam. ci sunu kanam. ñu fàttaloo li ci ñu fàttaloo ko li ci sunu ginnaaw. nañu fàttaloo li ci sunu ginnaaw. nañu li ci sunu ginnaaw. ndax nit buy liggéey. ndax nit buy liggéey. te bëgg dem. te bëgg dem. du geesu. du geesu. du xool lu mu warut a xool. du xool lu mu warut a xool. góor góorgóorlu ci liggéey bi rek. nañu góorgóorlu ci liggéey bi rek. li koy tax a dox rek. li koy tax a dox rek. ñun ñëpp. ñëpp. nañ maase nekk ci. nan maase nekk ci. noonu la ko sëriñ bi bëggee. noonu la ko sëriñ bi bëggee. su ko defee. su ko defee. lañ ciy wut ëllëg. lañu ciy wut bu ëllëgee. danañu jàppandi lool. lool. ngir. kuy def lu baax. kuy def lu baax. saa su ne. saa su ne. nga nga nekk ca. te delluwoo ginnaaw. te delluwoo ginnaaw. béy boo nga xam ne. béy boo nga xam ne. la nga cay sàkku. am na fu mu lay nekk. am na fu mu lay nekk. te fa mu lay nekk. bu ëllëgee. bu ëllëgee. foofa rek am foofa rek mu am njëriñ. nun taalibe nañ sant yàlla bu baax. nanu santaat yàlla bu baax. bi nu àndee jëwriñ ju ñuy liggéeyloo. bi nu àndee jëwriñ ju ñuy liggéeyloo. jëmale ci Serigne Touba. jëmale ci Serigne Touba. ñu di ko liggéeyal. ñu di ko liggéeyal. te Cheikh Mababou sunu bunt Serigne Touba. te Cheikh te Cheikh Mababou di sunu bunt ci Serigne Touba. kon kon. war nañ sant yàlla bu baax. war nañoo sant yàlla bu baax. te te gën a góorgóorlu nag. te gën a góorgóorlu nag. xam ne. te xam ni. kër goo fi gis mu dox. kër goo fi gis mu dox. taalibe rek rek moo tax mu dox ndax ci la ñuy rawante. ndax ci la ñuy rawante. kon ku la taalibe bu la pas-pas. kon taalibe bu la ëpp pas-pas. raw la ci ci sëriñ bi. raw ci sëriñ bi. te kon nag loolu. te kon nag loolu. ñun ñëpp moom la ñu war a sàkku. ñun ñëpp moom la war a sàkku. kon ñu ngi leen di sant bu baax. kon ñu ngi leen di sant bu baax. nañ ko daan waxee rek. nañ ko daan waxee rek. di ko ni defee njaareem. di kon ni defee ca njaareem. muy njàngum alxuraan moo daan jiitu. mu njàngum alxuraan mi moo daan jiitu. sëriñ Ilimane Serigne Elimane Gueye. moom Serigne Moustapha. moom Serigne Moustapha. ak Serigne Abdou Dieng moom Serigne Malick. Ah, moom ah, Serigne Abdou Dieng moom Serigne Malick. ak sëñ Elimane moom sëñ Baye Cheikh Gueye. ak sëñ baay Cheikh Gueye. Elimane moom Baye Cheikh Gueye. Elimane moom Baye Cheikh Gueye. ak bokki taalibe yi nekk Touba. ak bokki taalibe yi nekk Touba. yor daaray alxuraan. yor daaray alxuraan yi. kenn ku ci nekk. kenn ku ci ne. sant nañ la liggéey bi. sant nañ la liggéey bi. ba am na ñoo ñëw nañ ak seen kaamil. ba am na ñoo ñëw nañ ak seen i waaye li ci ëpp nag moom. waaye li ci ëpp nag moom. dafa ñëwagut ba mën a jottali lim bi. dafa ñëwagut ba ñu mën a jot li lim bi. waaye jot jort ne. waaye jort nañ ni. lañ daan am ci kaamil. lañ daan am ci ay kaamil. waxtu wu ne day dolliku. waxtu wu ne day dolliku. waaye du manqué. waaye du manqué. lépp Cheikh Mabaabu moo ko waral. te lépp ma baabu moo ko waral. ci bis bii lañ ko defal nag. ca bis bii ne ke lañ ko koy defal. ba weer wi dellu si waat déwén. kon sëriñ bi naa na sant na bokk bi yëpp. sant na taalibe yëpp. sant na dëkkandoo yëpp. sant na dëkkandoo yëpp. sant na jëwriñ yi. sant na jëwriñ yi. ñëpp rek. ñëpp amul amul amul ak seen. amul xëj ak seen. kuy jëwriñ rek. kuy jëwriñ rek. yaa mbooloo ma nga àndal. yaa ngi mbooloo ma nga sëriñ bi sant na la. sëriñ gërëm na la. gërëm na la. soññaat na la. soññaat na la. kon nañu maasewaat. kon nañu maasewaat. takku takku. fas yéene doon ay taalibe. doon ay taalibe. ci liggéey sëriñ bi ci liggéeyal sëriñ bi. jërë ngeen jëf. jërë ngeen jëf. asalaamaaleykum wa rahmatulah. asalaamaaleykum wa rahmatulah. Baay لا لا إله إلا لا لا إله إلا لا إله طيبان لا إله إلا لا باي فال رب المؤمنين رب لا إله إلا الله لا إله Bye bye. la ilaha illa la ilaha